ñëwaat alors présidente euh, seen seen mouvement bi muy mouvement union nationale des valeur Euh, républicaine lan moo ko différencier ak mouvement bi nga xamante ni ñun moom la ñu xamee SIDAT muy mouvement wu UDN. c'est-à-dire que jërëjëf euh, foofu cest à que mouvement bi dafa am mouvement yu bare yu ñëw former mouvement bi euh, fépp foo fi mu toll nii. dans le département de Dakar on a ona on a vingt trois communes yoo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ñëw affilié ci mouvement bi Kër Massar Dakar six la département de Pikine six département de Rufisque quatre département de Guédiawaye benn Kër Massar six ça fait vingt trois communes mais yemul si loolu ba léegi ñu ngi dugg si nit ñi. ñu def porte à porte comme ñëpp nu def mouvement bi yemul Dakar kese y aussi dans la dans les régions régions yi yëpp mouvement baa nga fa donc euh, yemuñu si lii rek ñu ngi dox di wut ay euh, di di seeti nit ñi di leen expliquer lan moo tax mouvement bi jóg pour ñu war a ñëw bokk ak ñun liggéey euh, ba pare ñun suñu mouvement bi bu yàggul la mhm. mais yeneen mouvement yi xam nga dafa yàgg ay mouvement yu bëri la yoo xamante ne ñoo ñoo jokkante def mouvement bi jàppale amadu Ba moo leen tax a jóg mu ngi moo moo tax a jóg en fait jàppale Amadou Ba tax a jóg parce que moom lañu fi gis nii moom la war a mun a jàppale professeur Daouda Ndiaye na professeur Daouda Ndiaye xaw ma ko mënul musuma ko gis dégguma ko ci dara donc mun xaw ma ndax dina mun a yor réew wala de Amadou Ba xam nga ko. Amadou Ba xam naa ko. mes nga koo gis. mu dul ci télé dana naa ko les médias. ah gis naa ko dans les médias gis naa ni ku yaru la gis naa ni ku teey la dégguma ko ci dara yi luñ koy mën a tilimale donc bu dul loolu sax avant loolu président Macky Sall lañ nekk loolu. bu président Macky Sall demee benn mi ngay bàyyi indi Amadou Ba nañu kii laa bëgg ngeen jàppale ko te ñu xool ni président Macky Sall li mu liggéey yépp ci biir Sénégal ñi mu fi wundu kenn defu ko fi mu indi teg Amadou Ba mi nga xamante ne euh, moom moom ñooy liggéey amadu Ba nekk koo xamante ne ñépp ko sob mu mu ne bu ma si j'ose ñëpp sopp ñu ko de. si j'ose dire d'accord j'ai bien dit si ah. j'ose dire ñëpp a ko sopp ndax yaruteem ñun yaruteem moo tax man pratiquement man man man personnellement man yaruteem moo tax ma bëgg ko man ak manduteem dégguma ko si dara lu ñuy wax ni am Ba fii ak fii. d'accord loolu mooy mais boo mësul gis tamit jaaxaral nii toogoo moom waxtaan ak moom noo mën na. tooguma moom waxtaan ak moom. Ah. mais soppe yàllaa koy def si xol. mais dama ne mais bu fekkee yow xam nga présidente nga si mouvement bi nga ne da ngay diriger les mais au moins. Mhm. am na loo xamante ne woo moo la war a mën a motiver si moom koo xamante ne mais gis nit à la télé rek. non nga ne nga ñu naan dafa yaru dafa yaru nga topp si dafa yaru pour man loolu aussi tamit bon euh, voilà c'est un aussi. voilà voilà dinaa la si tontu du dégg nii rek dafa yaru du gis ni rek dafa yaru moo tax. Mhm. damaa gis ay action mu def. mais mosoo ko gis Parcelles Assainies ko gis moom en personne. sama mhm. mais loolu vous pas c'est un problème. j'ai pas compris. ma ne gisoo ni loolu jafe-jafe la par exemple lu ñu mënul comprendre le fait que mosoo gis nit. mais su ko ba da nga koy bàyyi ah, mu ñëw ci action yi nga xamante ni teg na si bët Amadou Ba def ko. gis naa Amadou Ba parcelle. Mhm. dimbale fa jigéen ñi. financer fa jigéen ñi loolu teg naa si sama bët. Mhm. parce que maa ngi dëkk cité Aline Sow bu golf kon xam nga cité Aline Sow bu golf ak parcelle sorewul. Mhm. mais loolu ko war ci état bi la de. voilà c'est c'est moom la am na ñoo xamante ne peut-être ñu ngi si état bi te. du ñu dimbale ñeneen ñi. nit xam na li ko war te defu ko nit xam na li ko war te defu ko. donc action yi ma gis muy def daal ak yi ma am quelque personnes yoo xam ne ñoo may dee di ma wax moo tax man ma bëgg ko man. d'accord Kajo. par rapport ak mouvement boobu laay wax lan. mais bi waxu bëgg lay wax de.